asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa ñu ñëw rek ci information boo xam ne bii du gudd sax waaye ñu tënk ko rek jëmale ko ci Guinée Conakry euh, fan yi yëpp maa ngi topp xew-xew yi fa am ndax Guinée dafa ne tekk ba noppi ak Doumbouya ba noppi ci suuf mu am ay yëngu-yëngu yu bari yu fa am euh, barki démb samedi ci guddi jàpp dimanche jàppati nañu kenn koo xam ne kii ci militant Alpha Condé yi la jàpp gën ko jàpp nag ak ñeneen itam dañoo bokk ci li leen junte militaire bi di di di tuumaal te dañuy yore ay ngànnaay te amuñu ci permis amuñu permis yore ay fetal te dañoo seetlu ne kër gu ñu dem ci militant Alpha Condé yi dañuy fekk ci ñoom léeg ay xeetu ngànnaay bari nag ay ministre ak i directeur la société waxoon naa ko ci groupe bi yoo xam ne jàpp nañu leen ñoom ay affaire luubal xaalis ak yu demee noonu ba léegi ñu ngi ci biir kaso bi euh, ba samedi bi itam ministre bi ñu dénk wàll justice dafa daal di génn wax moom moo di Alphonse Charles muy jiite justice bi ci Guinée ne ñii ñëpp nekk ci gannaaw Alpha Condé kuñ ci jàpp rek fekk nañ ci yow lu mel ne trafic lu mel ne ay ngànnaay lu mel ne alal ak yeneeni mbir yoo xam ni dafay wane ne dañoo trahir dañoo wor askanu Guinée Conakry ñu ne nag ñoom waa Guinée Conakry ñoo ko wax ñu ne nag Alpha Condé mii nga xam ne fii ñu toll ni tembe waxoon naa ko fi ma nga ca Turquie ca réewum Erdogan mële dañoo bëgg mu dellu si ñu atte ko te ñu ngi koy teg itamit euh, ci wàllu yoon loo xam ne lii daanaka mandat d'arrêt international la fu ñu ko gis ko jàpp dañoo bëgg mu ñëw ñu daal di koy atte loolu moom mooy na ñëw ñu tëj rek ne moom xam naa ne moom Alpha Condé moom bu ñëwee Guinée defe naa ni su wàccoon ci aéroport ba du du gis ngelaw li ñu ne déete waay am nag leneen lu ci xew ndax xam nga Guinée dañoo jaayoon seen benn avion loolu Air Guinée dañ koo jaay te boobu Alpha Condé fa nekk bi muy door a tàmbali tuuti rek coow li nag ci ñaari mandat yooyu dafa am problème lool Air boobu boobule ñu tudd ci nag Cellou Diallo yéen a ngi fàttalikoo Cellou def na ñaari yoon élection ñu gañe ko te benn ba sax moo gañe woon Alpha Condé waaye dañ koo sàcc ndax guléet dans l'histoire politique ci Afrique am benn chef d'état bu def deuxième tour kala raw rawee la quarante huit pour cent nga am ko ba noppi nga nga wëlbati carte gi yow amoo ko mat sàcc Cellou Diallo moom nag dafa nekk exil mi ngi Dakar gii fii nekk exil mi ngi fii ci biir Sénégal ministre bi ñu dénk wàllu justice nee na njort nañu ne fan yu ñu jëm euh, Céline Diallo jàllo dina ñëw ginne ñu déglu ko ci roppalaan boobu Air Guinée boobu ñu jaayoon ndax avion Guinée bi dañ koo jaayoon ñu ne nag loolu la ñuy doyee Céline Diallo mu ñëw pour ñu déglu ko ci daal laaj ko ci ay mbir ndax dañoo njort ne ndax Céline ne war na ministre tam ci gouverneur <laughs> bu leen fàtte loolu Céline Diallo mi nekk na ñaari yoon ba sax mbaalu këpp ministre ci gouvernement bu Guinée Conakry ñu ne nag dañ ko bëgg déglu ci wàllu air Guinée boobu am na lu taxoon ak yan sabab moo taxoon ñu jaay avion roppalaan boobu de de Cellou Dalein Diallo nag ma ma baamtuwaat ko mi ngi exil fii ci biir ndakaar ci Sénégal yàgg na fee ñëw am na fi ay connaissance yu bëree bari am na kilifa yu bari yoo xam ne sax ay xaritam la ñu fi nekk waaye loolu beneen détail la ak yi mu fi am ak yu demee noonu du ñàkk bis ñu dellusiwaat ci de Alphonse Charles mi ministre bi ñu denk wàllu justice nee na fan yi ñu jëm bëgg nañoo déglu Cellou Diallo Cellou Dalein Diallo mi ngi fii Dakar nekk exil ñu déglu ko ci avion boobu ñu jaayoon fële ca Guinée. Alpha Condé moom képp ku taxoon ci moom jàppal na daanaka yaa ngi ci kaso bi ba ba fa amee ndomb tànk ba samedi ji jàpp dimanche jàppaat nañ keneen koo xam ne kii militant la lañ ko tuumaal fekk ci ñoom ay ngànnaay ay alal ak yu kenn xamut moom lañ koy tuumaal fii ni toll nag nee ñu loolu fokk mu leer. gannaaw ba nga xamee ne eh, ñi ngi wër ba léegi itam ñi fëxul ca kaso ba ak la ca xewoon te dumb yaa mer ca lool moom mi nga xam ne moo di soldat bi jiite Guinée Conakry jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Aboubacar maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax eh, di wax it amin ci ñaan yi waaw ñaan yi moom yàlla nañ ko bokk am na ñaan yi for na lool jërëjëf yàlla nañ ko yàlla boole. waaw laaj nga laaj bu ama ama am solo fekk Mamadou Doumbouya mi nga xam ne moo jiite transition bi nekk fële ca Guinée Conakry wutu fa Alpha lu mu def ba mu tàmbalee ak léegi kañ la fa ñëw moom mooy kan ak nan la taxawee ca Guinée loolu laaj la boo xam ne bii ñëpp ko war a laaj waaye ñi ci war a jiitu mooy africain yi ak waa Guinée ndax day laaj boo xam ne bii mooy arrangé waa Guinée waaye itam mooy arrangé sa darajay Afrique ndax Guinée kooku nga laaj mu di Doumbouya mi nga xamee ne moo jiite woon en deux mille dix-huit moo jiite woon force spéciale yu ginne yi ci wàllu armée bi leen force spéciale yooyu nga xamee ne ñoom la ñu duppee ay bérets rouges ci atum deux mille dix-huit moo ko jiite woon waaye bala maa ñëw ci bala maa ñëw ci moom dumbu Doumbouya mi jiite ginne dama lay dikkal ci réew mi ci boppam maanaam maanaam réewum ginne ci boppam placement bi mu am ak ni mu waroon a mën a développé la fa yàlla def ci alal mais malheureusement depuis si président Sékou Touré ba léegi zéro. seetloo Guinée Aboubacar Diallo xam nga mi ngi bokk ci réew yi nga xam ne moo di réewu Afrique yi soowu jant ñu duppee ko Afrique de l'Ouest Euh, mu nekk réew moo xam ne nii am na juróom benni frontière juróom benni réew ñoo ko wër réew mu bari ndox lu mat juróom benni weeri yàlla wala juróom ñaari weeri yàlla da koy taw gannaaw sedd bi doog a ñëw euh, Guinée am na fer am na bauxite am na sax pétrole euh, exploitant yi fa nekk jamono yi mooy chinois yi ak lenn ci waa Russie mu nekkit réew moo xam ne mii réew mu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu la Guinée Conakry daanaka boo seetloo xaw naa mën a nekk ñaareelu yoonu Sénégal ndax seen superficie maanaam dén bi nga xam ne moo mooy suufu Guinée Conakry mu ngi nekk deux cent quarante cinq mille huit cent cinquante sept kilomètres carrés te loolu su ma tuddee frontières yi da nga xam ne kon réew mi euh, réew li Afrique yi ci gën a ngand ci la bokk gannaaw république démocratique di Congo ci réew yi gën a yaatu la bokk muy RDC lu mel ne réew mi nga xam ne moo di Algérie ci gën a yaatu la bokk wala boog itam réew yu mel ne ay Soudan bi demee noonu mais euh, deux cent quarante cinq mille huit cent cinquante sept kilomètres carrés réew mi ko am di taw lu mat juróom-ñetti weer jàpp juróom juróom-ñaari weer jàpp juróom-ñetti weer am juróom benn frontière réew moomu dëgg dëgg dëgg ak li am ci fer am bauxite ak la fay taw ak li meññeent yi nga xam ne ci wàllu fruit moo fay jóge réew moom mënoon naa war a développé parce que kenn ku nekk umpalewul ne Séné euh, Guinée Conakry ay frontière am mooy Mali Guinée Bissau Sierra Leone Libéria Sénégal ak Côte d'Ivoire man juróom-benn réew yi laa xam ni ñoo séq ak Guinée am diggoo ay tool maanaam am ay frontière am benn xadd bu dox seen diggante bu dul juróom benn réew yi man xaw ma ko xëy na golfe la bi lañuy ñuy wax te loolu océan bi moo fa jaar océan atlantique bi mooy géej gi romb biir Ndakaaru moo jaar foofu waaw ak tamit fleuve senegal bi nga xam ne fleuve Guinée bi ndox mi dugganteeg yu demee noonu su dul loolu daal juróom benn réew yi mooy réew yi nga xamee ne ñoo am frontière ak ginne Conakry gi nga xam ne moom moo di Doumbouya moo ko jiite. ma ñëw ci may laaj léegi ne lu mu fa def defu dara ci bam faloo ba léegi joyanti xeex contrôler euh, kuloog waa France jubóog waa Burkina Faso jàppale waa Niger loolu mooy tax taxawaayu Mamadou Doumbouya parce que Mamadou Doumbouya wax naa ko léegi en 2018 lañ ko faloon moo nekkoon ki nga xam ne moo nekkoon commandant de forces spéciales yu Guinée Conakry en 2018 ba 2020 mu def fa ñaari at yàlla ci armée bi 2020 mu nekk colonel 2020 ci la nekk colonel te loolu ngir yàlla ak taxawaayu Alpha Condé parce que nit ñi dañuy fàtte ne Mamadou Doumbia Aboubacar Diallo xam nga jànge na ñëw na ci école bi nekk fii ci Thiès nga xam ne fi la ñuy formé officiers yi de l' ak sous-officiers de l' armée yi ñu duppee ko ENSOA ENSOA bi jànge na fi te booba Alpha Condé moo ko mayoon bourse indi ko Sénégal pour mu gën a yokk formation militaire am ndax xaritam la woon te nekkoon na France itam. am na sax jabaru français la yore am nañu wax loolu waaw loolu moom duma ci sori mu dem France def ay formation ci ay quelques écoles militaires dellu si waat doogu rangé waat ci armée bi ba noppi woon yore woon sécurité force spéciale yi nga xam ne ñoo nekk ci Guinée Conakry grâce grâce à Alpha Condé 2018 nga jiite force spéciale yi 2020 ñu def la nga nekk colonel euh, Doumbia il faut ñu xam ko parce que Doumbia mi ngi judd le 17 septembre astafurlah astafurlah le 17 septembre 2021 ci la ci la ci la def coup d'état en 2021 bi comme li nga doon laaj ci la def coup d'état ci septembre 2021 bi mu jiite CNRD bi mu di comité national du rassemblement pour le peuple bu Guinée mu jiite leen fekk euh, septembre nag daanaka officiellement ci la nekkoon loolu lépp mu jiite ko te Doumbia bi nga xamee ne moo jiite CNRD bi ma lay wax bi muy soldat sa rek boo déggee loolu te 17 septembre ci atum 2021 moo defoon coup d'état moom 43 ans rek la am 1980 bii la judd le 4 mars 1980 la la gane àddina Aboubacar Diallo moom Doumbouya moomu alors bi mu nga xamee ne loolu am na mu def coup d'état première opération bi mu njëkk a def mooy jàpp ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekkoon ci kanam a Condé parce que guinéens yi dañoo tëb bëgg ko wuy mu daal di tàmbali saaga waa France nangam ak nangam ba mu saaga waa France nag ne leen waaw ñoom colonialiste yi niñ fi nekkee du yoon et cetera askan wi bëgg ko ñu naan wuy Alpha Condé defu fa dara nangam ak nangam mu dugg toog tàmbali ubbi ay bunt daal ne léegi ay lekk sax ak naan yu bëree bëri yi nga xam ne dafay jóge France nañ ko arrêté léegi na ko Burkina Faso Mali ak yooyu di ko di ko jox ay ay dund. xoolal waxi soldaar yooyu mais France tamit daal di tàmbali bloqué ay banque lu mel ne BIS eh, eh, BICIS lu mel ne PNDS euh, lu mel ne GBS PNDS bu ko GBS laay wax wala lu mel ne Ecobank multinationale yooyu yëpp yu bëri bëri tàmbali nag di tàmbali di fermer robinet yi Guinée tàmbali am problème mu problème mu xaalis ak ndax seen monnaie bi baaxul euh, bi baaxul te Guinée économie bi économie bi ñu ko yore mooy pël Fuuta yi l'ensemble euh, opérateur économique yi ci bëree bëree bëree bëree bëree bëri ay Guinée ay Guinée bi ay Bissau Guinée yaa lañ astaghfirullah man maa ngi jëm rek ay ay Pël Fuuta lañ Pël Fuuta yooyu nag ñoom sellu dañu jàll mooy ki nga xam ne moom moo leen neex moom lañ wax ne bés bu yoree réew ma ñu ñëw investir ci biir Guinée mais tant que seen euh, ñëwu fa dañuy téye seen alal te économie bi Pël Fuuta yee ko yore te moom bokkul ci Pël Fuuta yi du xeet woowu moom Mamadou Doumbouya ah ay bambaraag yooyu la gën a jege léegi nag xamu susu léegi ci loolu nag moom ci boppam mu ne léegi dafay redressé économie réew ma mais booy redressé économie réew ma te yow nanguwuloo waxtaan ak opérateur économique yi pour fu téye téye seen alal garde ko lànk na ñoom tamit du ñoom tamit duñ defati investir ñu baree baree bari léegi seen alal ji wàccatul foofu ñaata guinéen yoo xam ni ay Pël Fuuta la ñoo am ay immeuble fii ci biir Sénégal rawatina fii te man ma xam ko parce que tout simplement ragal nañu investir foofu ci Guinée euh, dumb yaa xam loolu nag daal na moom léegi daal li ko intéressé mooy na français yi abalee nañ comme ni Guinée di Mali doon def ñoom daal léegi affaire yi léegi daal dañuy ànd ak waa Niger dañuy ànd ak Burkina Faso parce que yi nangam ak nangam booba faloo ba léegi amul lenn lenn ndax nee na dafa bëgg a renfouler waat kees yi defaraat xaalis bi xool infrastructure yi yoon yi ak yu demee noonu daal économie réew mi ñu dugal ko ba pare door a ci lu mel noonu te gàpp ba fa gàpp ba fa war a jógee sax ñoom kenn xamagu ko fi ñu toll nii dañ waxoon ne waaw dañuy def un an et demi deux ans léegi deux mille vingt et un ba léegi mën na ñaari at waxaatuñ sax foofu lu ca jëm te waxoon naa ko dinaa ko fàttaliwaat gis nga Guinée mooy réew mi nga xamee ne moom laa xam ak Gambie ñaari réew rek la astafurla Gambie euh, Guinée Conakry ak Liban waaw Gambie sax moom mën naa xam ne tuuti la tax ko bari lool ci affaire bi mais mais Guinée yi ak Liban ñooy ñaari réew yi nga xam ne seen ay ressortissants yi nekk ci biti ñu ëpp population bi nekk ci réew ma maanaam tey Guinée yëpp boo leen jëloon xeet yëpp nga boole leen li li fekk baax Guinée Conakry te nekkatul fa ñee nga France ñee nga Allemagne ñee nga Sénégal ñee nga Sierra Leone ñee nga Libéria boo dellu si waxtoon askan woowu moo ëpp population bi nekk Guinée parce que Guinée treize millions euh, euh, cinq cent la population Guinée deux mille vingt et un bii bii bii bii bii bii bi Sewaaye di def coup d'état population bu Guinée mi ngi tolloon ci treize mille cinq cent et quelque fukki junni ak ñett yu toftal juróomi téeméeri junni doomu aadama en deux mille vingt et un ressortissants guinéens nekk ci biti ñu treize millions cinq cent en deux mille vingt et moo doon population bu Guinée Liban libanais yi nekk ci biti mu ëpp population Liban même Gambie gii Gambien yi nekk ci biti boo leen dellu si waatoo ñu ëpp ña fa nekk donc Dumbuya boo bëggee dégg dëgg dara la fa deful nekkul lu dul tëj nit ñi di topp Alpha Condé dégg ngeen léegi Alpha Condé ma nga ca Turquie talu ko sax ah Cellou Diallo mi ngi fi nekk exil fii ci biir Ndakaaru ma naan ko ñëwal parce que boo ñëwee dañ laa war a atte laaj la ay affaire avion bu nu jaayoo mais avion boobu c'est vrai que boobu nag Cellou moo nekkoon premier ministre mais parce que moom la woon ak ministre des affaires étrangères bi nekkoon Guinée ak le président de la république qui était là lii daal laa xam ne moom mooy tontu bi ci lu yaatal yi ak tam déggu fa dara ab soldaar la affaire sécurité moo ko intéressé asalaamaaleykum